saret buy tonni mbalit salaxali bu jigéen ba sànni liir boobee nga xam ne maanaam daf koo xoj ba mu sedd guyu da koo dugal ci ab saako boole ko ko mbalit sànni ko ci saret boo xam ne dafa romboon doon jël mbalit waaye nag nga xam ne mooy borom saret ba nag ba mu demee bay tuur mbalit ma maanaam di jeex mbalit ma si la gis liir boobee nga xamante ni maanaam dañu ko sa daal di sànniwaale si la nag alerté daal di koy wax police xali bu jigéen bi nag bi ñu ko laajee nee na dafa am benn copain boo xam ne moo ko ëmbal ba pare nag daal di lànk loolee moo tax maanaam mu daal di koy sànni yéen a kaay gi nee na juróomi ati la ñu wax ne moom la ñu koy tëj yéenekaay gii di L'As ak Sud Quotidien ak Enquête ak L'Observateur xëy di ñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum luyaas bu seer bi ni ki démb gouvernement bu Sénégal doon nañu ko waxtaane waaye nag bi ñoom seen bopp jamono ji nangu nañu d'accord nañu ne nag loi bi nga xam ne voté woon nañ ko fi ngir wàññi location bi ñoom nangu nañu ne dañu see di la lajjee jamono ji nag li ñu bëgg daal mooy teg ab observatoire caution bi nag ñu jël ko yóbbu ko ñaari weer di enregistrer li nga xamante ni mooy contrat yi yéenekaay gi na dina nekk mbir moo xamante ni daal lijjanti ko dina jafe loolaay Momar Ndaw moom nag dafa joxar bi baaraamu tuuma ministère bi ñu denk wàllum finance yéene kaay gii di vox populi ak le témoin ñu xëy fekk fa Antoine Diome mi ñu dénk intérieur daan nay rafetlu bu baax a baax liggéey yu préfet yi ak su préfet yi préfet bu Pikine moom nag ñaaw lu na bu baax a baax opposition bi nga xam ne ñoo leen di songo yéene kaay gii di réew mi quotidien nee na Simon rappeur génn na ci kasu bi ndax dafa feebar ginnaaw bi ñu ko ñaanalee li nga xam ne mooy ab liberté provisoire yéene kaay gii di l'observateur moom dafay wéy des ci bi yéene kaay gii di ñu xëy fekk fa Serigne Babacar Mansour xalif général des moom nag daan nay ubbiwaat jumaa yi ak jàkka yi yéen kaay gi de la Soleil nee na njiit réew di Macky Sall dina yebal nag lu toll ci fukk ak juróom ci ay professeur médecine docteur ca diiwaanu Guinée-Bissau ngir nag daan leen di jàppale yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu réewum Sénégal nag dafa lebal lebal lebal maara day taale Sénégal li mu amee nag ca ay bor amel ko FMI ak Banque mondiale maanaam jéggi na dayoo Sénégal nag réew yi gën a ndóol ci Afrique ba pare ëppi bor maanaam Sénégal ci la bokk bi nag ana fan di laaj yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum dund gi nag attention bàyyi boo ñu def ndànk ndax nag am na ay alerte yoo xam ne maanaam mbir mi dina gën a jéggi dayo daal maanaam dund gu metti gi dina gën a jéggi dayo ci réewum Sénégal yéenekaay gi di L'As xëy dañu xibaar naan ñu dafa am benn Mbàkke Mbàkke bu tudd Serigne Mohamed Mbàkke dëkk Touba moom nag daal dafa dëbbale njaa nax njabartu nag benn taalibeem boo xam ne France la nekkoon njabartu ko ba taalibe bi tàggoo ak sogoma moom Serigne Mohamed Mbàkke lu mu laaj taalibe jox nag daal ko koy yónnee moom taalibe bi nag ba mu demee ba nga ne ànd na nag ak xelam ndax dañu koo njaboroon ba xamul li muy xaalis ba nag toll na ci quatre-vingt-quatorze gi ne nag sëriñu mbàkke-mbàkke boobee nag taalibe bi da koo mujjee porte plainte waaye nag sëriñ bi na mes ne menteñ daal daw làqatu Gàmbi gars yi mujjee nañu ko teg loxo yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu tuxkat yi ci àdduna bi bëri na lool fii ak 2025 dina ëpp bal yi jamono ji ñoo ngi def lu dara jëru fi nga xam ne mooy jaxaay ñàkkuraba yéen kaay gi nee ay bandi ñoo ñëw ci benn kër fekk fa ab gardien yeew gardien bi sàcc fa a pick ba pare dajji fa ay boutique yu bare bare bare yéen kaay gi di enquête ak le quotidien nee na wuyu yu kay jamono ji maanaam mbuur la ñu fare ndax am na benn usine bu nekk sànjara ay wuyoo ki bandi sàmb sura bali ñoo ko doon dajjee ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee am na juróom ñoo xam ne am nañu fa ay gaañu gaañu waaye nag bandi yi dañu doon tiirante ay bal ñi nga xam ne ñooy gendarme yi yi sax